Ah, mbokk yi xarit yi Lougaré TV asalaamaaleykum wa barakatuh alors on se retrouve ce matin ñu ngi leen di nuyu bu baax di ziar bien sûr euh, on espère que voilà vous avez passé une très bonne nuit euh, démb alors euh, di len ziar encore une fois yéen chers internautes bu dul alors donc ñun duñu amé sax tout le temps donc cette cette envie d'être là devant vous alors bien sûr yéen a ñuy pour que ñu mëna dem toujours de l'avant ñu ngi len di jaajëfal bu baax ci rek. Euh, abonnement yi également dina jaajëfal ci tewlu bi fidélisation bi ak programme Lugari TV alors seen matinal dooxatina euh, nañu baaxew du kandele sa suné ne Dame Ndiaye ak Momo saliw alors Dame nuyu naa la wa mari mang lay fay di contane partager ak yow plateau bi. te hésiter <laughs> yaa ngi hésité pour wax ma noo may ah dama jaxlé da xawma la lan ndax né nga ma may sens ak yooyu. taman lool la non dama lay tooñ mën nga continuer nga doon nuyu xewal di nuyu momo sali di nuyu internet yi nga xam ñoo ñuy seetaan di nuyu caméraman yeeg technicien yëpp di nuyu waa di nuyu Touba voilà donc momo saliw dam nuyoo na yow it Mari ngi ngi lay fay di nuyu Baye Dame sa chemise waaw man de yow li def xanaa xamoon yow. man yeneen man ko waxal ko nee nga ak yow man xiyaam sax yaakaar naa ci bunt bi maa fay taxaw ku sansewul doo jaal incha allahu rabbi. ah waaw ok ba mu leer ñëpp ñi nga xam ne xaratu moom ñoom maak ñoom classico la nañ ma jéem a neexal ku sañcewul doo jàll <laughs> chaque fois ñu ngi may seetaan chaque fois ñu ngi ñuy seetaan di ñu ci matinal bi ak yeneen émission yu mel noonu donc ñu ngi leen di safoo ñu nag yéen a far mm, bien sûr voilà euh, ñu nag ñoom a far bien sûr alors euh, en tout cas dinañ def suñu këm kattan ba saa su ñu leen di indi li nga xamante ni moom moo leen neex ñoom les internautes alors euh, Dame Ndiaye partie euh, moo di lu jëm euh, ci bien sûr quotidien yi ak euh, xibaar yi nga xam indi nañ ko tey ci suba enquête quotidien je sais pas si vous l'avez tous alors ñom lañu la leen soxal tay moy dañoo def ben enquête sur non la nga xam ni lañuy joxe les permis de conduire en tout cas lépp le de transport alors dame ñom gis nañu ne corruption bi maanaam neexal bi ba tay tay walu tay la wàllu gëna ay alors dafa mel corruption mënuñ ko dundee ci walu corruption moom marie si mii lem réew. non rawatina ci nañu délivrer les permis yaa ma gën a xam ah oui. yaakaar naa mu fi bëgg a caat la. Hmm, caat la kon yàgg na fi kon xam yàgg na ci. sëy yàgg na fi yàgg na fi moom am na ñoo xam ne sax yal ma yàlla baal duñ dem. attends loolu laa ñu toog la. fi ñu toog la ñu toog ñu indi leen ñu seen seen permis daanaka léegi dañ koy jënd. ça c'est dangereux. bu njëkk da ko daan tarbiya mm. def apprenti. Mm. sonn ci def koy at doog ñëw permis mm. mais boo xoolee ñi jaaru voie normale sax pour ñu am permis problème lay doon da ngay dem ñu lay dàq di la dàq di la dàq mais ñi nga xam ne dañuy fay da ngay ñëw benn yoon passé. kon loolu Mansour bu auto école euh, xam naa euh, voilà loolu war na ci indi wax. Euh, war na ci indi auto école yi boo gisee gaa yi di ci jaar moo moo gën a gaaw deux mois nga am sa permis te am na ñoo xam ne bu fekkee da nga am. mais li mu bind nii tey ñan lay tuumaal par exemple. ñëpp ngi ci droit. Hmm. parce que bu fekkee ne auto école yi am na ñoo xam ne lan la war a jàngale cours yi duñ la ko jàngale. dëgg la da ngay ñëw ñaar yoon ñett yoon ngay ñëw duñu respecté sax heure yi. essentiel na nga fay daal waaw essentiel baal na nga fay ñu lijjanti la permis mais man ngaa dawal ak mënoo dawal ak maîtriser nga code de la route yooyu yëpp duñ ko duñ ko vérifier dama ci doon waxtaan sama benn xarit bu nekk Italie hmm. mu pour nga am fa permis tout un problème. ah oui ah ndax nee na ñoom code de la route bi da koy maîtriser ba di ko rister. Mhm. da nga koy maîtriser ba di ko boo ñëwee passage dañ lay poser ay questions fenn fu ne dañ lay poser ay questions fii nag code de la route moom autour la rek. autour la rek ko ci xam bari. moo tax les accidents. waaw moo gën a bari da ngay gis parfois ku gis koo xam ne day jaar sens interdit. am na ñoo xam ne tayeef la mais am na ñoo xam ne xamuñu ko. Mm-hmm. am ñoo xam ne euh, panneau de signalisation yi maîtriser wuñ ko. Mm-hmm. xamuñu li muy signifié wu. Mm-hmm. moo tax yu bari accident yu bari na ma yàlla baal ñàkk a maîtriser code de la route ci la bokk. beneen bi doo mën a dawal am mari ngoom ngay doon. ah jox la wala nga jënd oto mu xëy xëy. na day dawal. parce que bu lijjanti na permis am am na kum xam u lijjanti la ko permis mu xëy xëy dawal kooku bu defee njombe responsabilité ki engagement ki ko jox permis mm-hmm. te xam na ne leer na ko na mari mi maîtriser wul taw bu baax école auto école yi loolu lu ñuy rafetlu la lu baax la mm-hmm. mais bu fekkoon dañ ko teg ci norme yi boobaa kenn du wax dara wax dëgg yàlla ndax ñëpp mënuñoo nekk apprenti te nit ñi dañoo war a am seeni oto di dawal kon c'est normal auto école yi am fi mais nag nañ fexe ba maanaam nit ki bu ñëwee fay xaalisam li ko war na nga ko ko defal mooy na nga ko jàngal ba mu mën a dawal na nga ko jàngal code de la boobu xam bu am buñ ko délivrer permis ñu xam ki kii maîtriser na permis boba né ba sa jaan wàcc na waaye lekk xaalisu nit bi jàngaloo ko génneel ko permis ëlëk bu amé bu défé jé yow yow responsabilité ci ci nga ci nga bokk. d'accord donc euh, Maman Saliou dégg nga li daan wax euh, enquête quotidien tey la mu daf ma intéressé trop parce que ku ne xamné ni fan yépp ñu ngi joytu walu accident de la route yi euh, ñu ci bëri sama classe gi sen dawal mokul voilà ñu bëgg dawal par le luxe comme ça. alors euh, tey yow euh, corruption boobu ñuy wax ci walu délivrance permis ma ma ma musoo musoo ko remplir ken pour jot sa permis <laughs> waaw xam nga mari dañu nekk rew mo xamni hmm. dam da koy wax corruption da fay bari mais man jëmu di man na fay deñ corruption man na deñ mën na deñ Sénégal parce que parce que parce que lolu tax mën na deñ moy hmm. lu ci nekk dañ koy defal limu war ay jéego bu ñu fekkoon ni Marie Ngom su yoree oto dawal mbëkk daam jaay tamu tay ko ñu dem ci borom auto école biko jox permis bi laaj ko ñaata tan la fa jang ak kañ la ko jël permis parce que ñom momu ñu permis dañ leen dañuy fay ñu leen koy défaral bien sûr oui xam dafa lo xamni dañuy dañ koy dañ koy communiquer terre à terre borom auto école momul permis dañuy fay ñu koy défaral léegi ki mi fay ci yeen condition lay génné permis hmm c'est yi maa ngi koy wax kéro ko bani ni euh, boo ma resé ku fa jangé auto ba génnee oto waroon nañ boo dajee ci mbedd war nañ xam ne kii boo dajee ak benn benn benn transporteur war na ne kii boo maraîcher la jàngee oto. ndax lan soo ko jàngee Géejawaay même chose boo ko jàngee Pikine soo ko jàngee Touba dafa war a am lu leen di identifier. Hmm. gis nga ni ni ni ni ni ni seen assurance demee. Uh-huh. tey jii bu fekkee mari nga moo yor assurance bi Momo Sall dafa jàng oto war nañ xam ne moo Sall mi oto diw lay lang assurance sàngam moo moo garanti oto bi Sénégal nga gis ko di yor pelu fu ko Sénégal ngay gis nit di yor oto di dawal te xamoo xam xamul fu ah, liggéey bu yomb la liggéey bu yomb la parce que tey bu ñu ne woon waa waa ñi nga xam ne ñoom par exemple Dakar dem dëkk yi ko bépp ku fa nekk comme receveur <laughs> lu mu def même bu fekkee yoru oto lépp lu mu def ci biir oto ci biir dakaar dem dëkk wala bu yoree beneen oto mhm. assurance sàngam moom moo assuré loolu assurance boobu ñukay fay ay drum assurance boobu ñukay ma fay ay drum ba mat mhm. bu ñu nee bu ñu nee tataay même chose njaga njaay même chose mais da nga dem fekk ben assurance bo xam da jël moto jël auto jël jakarta jël ñu war dañ leen war a départager ku nekk nga am loo yor su boobaa dina yomb régler mais quand ta que ñu ngi doxé ni amna ben way bu ma mësa dem fay ni ko ma bëgg permis mu ni ma alhamdullah mu ni ma 100000 140000 150000 léegi bo fay sans centimètres même pas deux semaines la nga am est ce que mon gars di nga mën dawal. c' est à dire que dañ leen wara tek ci ay. mais attendez te permis bi titre la titre de transport la. mari mais so paré da nga def code. mari xam nga lu jiitu ci xam eh, nga lu jiitu ci permis. Eh. jangal nit nu ñu dawalé auto ba paré mo mm. wara a ci permis. mais man gis na ko mën dawal auto ta amul permis. koko day dem defi pass ñu jox permis mm-hmm. ki mën dawal ta amul permis mo tax ne ki am ta mënul dawal. xam nga ki mën ki mën dawal ta amul kooku buñ ko jappé mën na xam ni mu amul permis mm-hmm. mais ki am permis te mënul dawal mari ñaata nit ñaata nit la mën lor. moo gën a ba pare contrôle bi ci des day bëree bëree bëree bëri bu ñu ñoom ñoom dañoo yéex a bind man su ma di dañoo yéex a bind parce que gis nañu gàmmu gis nañu màggal gis nañu leneen parce que boo xoolee diggante gàmmu gi passé Tivaouane Dakar 5000 la woon te fan lañ ko teg fenn donc yu mel noonu ñu li ñu def ni man dama koy rafetlu mais nañ koy gën di dénoncer fesal ko ci fesal ko ci espace yëpp ci ci structure yëpp su boobaa nit ñi dinañ mën a comprendre naka ak naka ba pare bu ñu bu ñu ko waxee ñu génn solution yi xam dina tax ñoom ñu mën ko def mais du ñu xëy rek ŋàññi leen bàyyi noonu chaque fois bu ñu leen ŋàññee nañu génne solution yi xam bu ñu ko jaaree dina dinañ ah lii kat bu ñu ko jaaree lii dina saafaraw mais bu ñu xëyee xas leen bàyyi leen loolu wala xëy xëy remarque benn affaire rek bind ko parce que tay soo ne marine boobu sa muuraay bi dafa ñaaw da nga naan ko greffage bi ngay teg pour mu rafet. donc nañu nañu nañ gëna fexé fofu foofu ñu ci dimbali wal nit ñi bu baax. Mm-hmm. voilà donc euh, mesdames et messieurs yeñu ñuy top yéen ngi fi ci lu Lougaré TV c'est l'émission euh, matinale euh, du jour alors euh, on va parler un peu de tout et de rien voilà euh, donc euh, actualité lañu top hein ah beneen pa côté bi benen wal bi on va parler bien sûr l'affaire Adji Sarr Sonko c'est demain alors Dame on fait savoir que ni Dakar policier kese là

te dans un état normal nag la sécurité avant tout. comme événement amoon na ci eh, marché bi mooy bi ñu convoqué woon Ousmane Sonko gis na li ci xew. kon c'est normal tey bu ñu convoqué waatee Ousmane Sonko ñu jël seeni matuwaay ba di xewoon bañ a xewaat loolu moom dama koy ñaan di lancer appel nag. Mhm. côté pouvoir comme de l'opposition nañu xam ne Ousmane Sonko Adji Sarr ay citoyen la ah ah. dañuy dem devant le juge dañ leen laaj ñu leeral yaakaar naa jërul xeex jërul xoroo jërul rayante nañ ko def ci jàmm ak salaam kenn ku ne toog ci sa kër ñu àtte laaj leen auditionné leen kenn ku ne ñibbaat sa kër Sénégal nekkaat ci jàmm. Mhm. ndax réew mi soxla na stabilité soxla na jàmm soxlawul fitna kon nag damaa jàpp ne force de l'ordre bi nañu encadré sécuriser bañ woote ci lenn luy fitna ñi nga xam ne ñooy militantion Sonko yi ñoom tamit ñu ànd ak euh, sérénité ànd ak retenue teewut mën nañoo gunge. seen mili nu tëdd seen leader waaye nag ñu def ko dans la paix hmm. ñu bañ a indi benn fitna ñi nga xam ne tamit ñoo ne ci côté nguur gi ñu maandu ci toog jàpp seen njàmboor bàyyi yoon dox liggéeyam ñu àttal ci jàmm kenn ku ne ñibbi ci jàmm. non maandu dafa war a am xam nga bu maandu amul mooy jur fitna moo tax may woote maandu man damay lancer appel de. Hmm, xam nga man li ma bëgg laa li am nag moom. Hmm. peut-être yàlla moo ko xam. waaye li Sénégalais di ñaan mooy nit ñi ànd ak seen xel ñu xam ne lii buñ ci maanduwul mën na jur fitna. na ndax gis nañu nekk na mën nga ah, ndax fàtte xaju fi. Hmm. te kenn ko ne na jël say responsable hmm. am na lu fi jot a xew ba ay nit ay bakkan wàcc fi. ba loolu leeralagul loolu sax. bakkan yooyu ba léegi kenn leeralagu ko. Hmm. kon nag war na nañoo moytuwaat lu mel noonu di amaat moo tax mën nañu maandu. ndax bu maandu amee rek yaakaar naa loolu mën na bañ a amaat. waaye bu par parloo amee. li xewoon man naa amaat wala du ko yées loolu en tout cas yal nañu ci yàlla muccal parce que ku ne xam ne ne fukki nit ak ñeent ñoo ci ñàkkoon seen bakkan événement de mars yi ba loolu tax na sax ba waa Amnesty International di wo euh, nguurug Sénégal voilà mu gën a xool doxalinam euh, ci lépp lu jëm ci droit civique des Sénégalais ak lu jëm euh, ñu indi transparence ci violence yi fi xewoon ci weeru mars boobee alors Momo dégg nga li dam wax alors euh, tay ji euh, ndakaru euh, des policiers et des gendarmes fess nañ fa del liko waral ñu wajjal procès suba bi sonko aji sar par xam nga mën na ñëw ci dam wax tout rek moy dañuy bañ li leen dalon dal leen mais pour man suñ ko bañal duñ ko annoncer ni wala duñ ko defé ni procès man sonko aji sar su neexoon état jaxna na bu yak so su ko neexee mu jeex suba su ko nexé suba suba wax di jeex mais na quant ñu ngi koy politiquer diko publier ku nekk li ci jot ñoom ni ñuy waajalee ba yor seen takk der noonu la njabootu Ousmane Sonko waajal ba wàcc terrain bi ñoom it te loolu day gën ay gën ñu indi ay jafe-jafe parce que déjà ñoom ñu ngi annoncé tey dañuy parce que parce que gis nga gis nga nit ki jàpp ne da tooñ ki yaakaar da nga koo tooñ même boo ko doon rey du bàyyi dëgg jàpp ne da koo tooñ même boo ko doon rey du bàyyi te ñoom dañoo jàpp ni dañ leen a tooñ mhm. état jàpp ni Ousmane Sonko tooñ benn nit mhm. nit kooku ñëw takkal Ousmane Sonko teg ci ñoom ñu jàpp Ousmane Sonko tooñ léegi li ci am mooy li daan wax nañ ko nañ ko yóbbu ñu waxtaane ko xool lim laaj ñu def ko. te mari man maa ngi ci xaar lu nekk. maa ngi xaar lu nekk ci projet boobu. parce que maa ngi gëm ni buñ ko bëggee renvoyer Ousmane ko mën na bañ te maa ngi gis ni buñ ko bëggee condamné ay njabootam bañ. wala mu yor yóbbee. en tout na nit moom bu ñu xalaat sax ay maanaam démb bu ñu ko xalaat. xam nga xam nga dèjà loolu mooy ñàkk sécurité. nit koo xam ne leer na la ñoom gëm nañu da nga leen tooñ xam nga yow dèjà ñemewoo suba ñaanoo yàlla ñu def ko mandat de dépôt parce que bu ñu ko defee dëkk bi tàkk léegi te ñoom fàtte nañ li jàll xam nga ñun ñooy calculer ni ay Ousmane Sonko am nañu ci gaañoon ñun ñun ñoom ñun ñooy calculer loolu ñun. mais ñoom calculer ñun ñooy bu ñu ko doon calculer dinañ dinañ dinañ tàntaat projet bi te su te lu gën a metti loolu mën na am amaat suba donc ñuy ñaan état lim ci war a def wala nim ci war a taxee mu taxawee ci ne bàyyi justice ak Ousmane Sonko ñu def li ñuy def parce que soo xoolee dara même jëm Adji Sarr nekkatul ci sécurité. Mhm. parce que boo xoolee Daniel bi passé. dañ ko mhm. sécuriser def ko ci oto ànd ak moom Adji Sarr fan la toll foofu loolu xam ne mbir mi am na ay détails yu ci nekk. te du te du ñoom dong ana 4-4 bi ko doon jëlee ana ki ci nekkoon. ana ki tegoon deal bi. non ñoom ñëpp ils seront convoqués de demain. muy Mouhamed Mbaye. Euh, Marie Mouhamed Mbayo Adji Sarr man li ma jàngat ak li ma gis. Mhm. mooy Ousmane Sonko kese moo leen ci ñor.

mais xam nga auto ba nga daan jënd. Mm-hmm. ñoom moom ñu ko de véhicule de fonction la. de fonction la mandat su jeexee da nga da nga fi bàyyi dem sa yoon. mais 700000 francs chaque fin de mois. gis nañ gis nañ euh, législature yi jàll gars yi bu législature yi jàll dañ leen jox dañ yóbbaale de. non non députation moi je crois pas député mm-hmm. parce que euh, loolu auto état la. auto état la mais dañ leen ko doon may. si bari dañ leen ko doon may après. bari na député yoo xam ne bu ñu paree dañ leen doon may. léegi 700000 yaa ngi dafa tuuti wala 700000 dafa bari. ndax boo xoolee député yi ñu dem assemblée mën nga kaa wàññi. Mm, mm. moom dama jàpp na bari na bari na trop. bari na boo xoolee député bu ne nga jox ko 700000. ils sont combien waaw mu ne 700000 la dépense la boo xoolee durée législative bi bu jàllee day ah bari trop. Ah, ah oui mais nag boo ko comparé ak léeg ñu daan def moom c'est mooy coûteux. ndax oto yi bi ñu ko daan jënd dafa cher trop a carburant bi rek boo xoolee. 1000 litres rek boo ko boo ko calculé day mat loolu ndax 1000 litres d'essence.

sa euh, haine mën na gën a yee un peu li ko gën a metti par exemple ci dëkk bi parce que mu moom mën naa xëy mille francs tëkk ko kee ñu koy fay salaire ba pare ba di ko jox benn indemnité de transport bu sept cent mille mooy li ma la wax rek bi mooy xaw doy waar ci ci loolu laay wax euh, séddale bi mooy mooy mooy mooy demee côté mm-hmm. ndax ki nga xam ne moom cinquante mille de côté salaire kee nga di ko jox salaire am ba pare di ko jox indemnité de transport ak sept cent mille day day xaw a doy ci réew bu mel ni Sénégal réew bu mel la Sénégal moo tax booy politique yi favori leen jox foog ñu wàññiwaat ah ko. faveur dafa bëri waaw faveur daf koy wàññi foog ko te taxe day tax lii day gindi euh, révolté askan wi di gën a ah révolté ah wu hmm. ndax dañuy dem ba maanaam dañ jàpp ne ñoom a hmm. ndax daam benn minorité boo xam ne moom lañ favoriser jox leen hmm. vie de luxe que population bi si des ñu ngi vivre dans la galère d'accord voilà Momo Saliou euh, donc dégg li ma waxtaan léegi ku ne xam na ni euh, front social bi tey jii tàng na parce que grève ñëpp ngi grève par exemple tey a

gis nga bu fekkee dañ doon xeexal dañu doon xeexal pour toog pour xaalis mm-hmm. mën nañ ñoo bañ a xeexal mm-hmm. te amagul benn benn compte bu ñu rendre ñun boo xam ne amal nañu njëriñ bi ñu toogee ba léegi mais man xam nga li ma jaaxal moom gisaguma benn ticket de nañ ko bàyyi de ama amagul benn compte bu ñu rendre boo xamante voilà mari waaw te kenn duna bàyyi leen ko de bañ fa toogee ñoom ba léegi amagul luñ def ñoom lu population ne gongo xanaa xeex nit ñi di leen di leen jébaane yow koo xam da ngay tàccu ak yuuxul ak saaga nday ñu la fay ñaat deux millions cent par mois éducation mhm. sénégal bi ma ngi fi taxaw mhm. santé baa ngi fi daa ñu war a xëy nit ñi waram lu ñu lekk commercial dund gi seer léegi ñun ban réew la ñu nekk on est au sénégal ah oui léegi man da man lii mooy war day mel chaque fois homme politique yi ñoom ñoo ñu gën ñoo ñu gën de te pourtant nit ñi ñoo leen di tàccul ñoo leen di xeexal ñoo leen di doxal ci naaj solo leen seen i t-shirt nga dem toog ñu la fay salaire deux millions cent kenn doon tàcc la ko yuuxal nekk kër millions nag un mille fan la bokk da nga ko ci boole non boo ci boole non doo ko ci boole transport sept cent mille mari kan moo koy dundee Sénégal amu fi taxi lañuy booy dem ensemble deux mille franc nga àgg de cinq mille franc dix mille franc dañoo warul àgg foofu fi ñu war àgg mooy seen salaire yi bu fekkoon daf leen ñor Sénégal leen ñor dañ koy dagg liggéeyal Sénégal mm-hmm. mais koo ci tàccul xeexal ko su demee dafa lay wan ni xaalis bee ma yóbbu woon donc ñi ko wooteeg ñi ñu koy jox ñoom ñëpp a yem ñëpp. man amul ma ci ah, ah, mari man ñaanuma yàlla nekk politicien. Ah, man ñaanuma yàlla nekk politicien. soo ma wanee lu ma jaaral kii kat nit la koo xam ne jar naa votel ma votel ko mais xaaruma benn poste ci politique.

wax ci ba mu mun a sedd on peut dire hein mhm. ah, parce que après tout euh, donc le rôle de sensibilisation et d'alerte dafa baax ku ne gis na ni bés bi le jour alors ñoom la ñuy def la ñuy def comme titre euh, vraiment ñu ngi neex tey bëri na man bokk naa ci parce que aluntine Tine la ñu mettre en avant ñu ne dafa war a jouer les sapeurs pompiers. Mhm. ci wàllu coowal troisième mandat wala coowal en tout cas Ousmane Sonko Adji Sarr euh, donc gisoon ne ñu mel ne Alioune Tine soxna la ñu ci réew mi ngir réew mi bañ a tàgg waaw société civile moom toujours li may wax moom day taxawee rôle rôle régulateur. waaw loolu médiateur ñoom moom loolu mooy seen rôle. entre opposition ak pouvoir bu affaire yi naree jax wala mu nar a jéggi dayoo ñuy dox ci tànk jàmm ba loolu loolu loolu fay moom gis nañ ko depuis 2012 ba léegi ci loolu lay dox taxawaayam nag ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu. waaw ndax ñoom toujours dañuy alerte mhm. bu buñu ñu ne dara nar naam ñu def alerte. bu ñu gisee na coow am na ñu fexe dox jàmm loolu loolu mooy seen rôle que pour jàmm mën a am ci ci réew mi loolu mooy rol société civile mais nag y a des sociétés yoo xam ne dañoo xaw a li ñaan des politiciens encagoulés mm. parfois ñooñu danañ voilà parfois dañuy dañuy dañuy ñooñu dañuy yokk ci xar mi karaw parce que bu ne bu ne boo woote woon société civile nga ba pare am foofar am position yooyu jël yaakaar naa da ngay gën a yeffi na Euh, société civile moom day taxawee neutralité du far fenn wax li nga xam ne mooy intérêt intérêt Sénégal yaakaar naa loolu boo ko defee dina tax Sénégal yi ngay waxal dinañ la mën mhm. la mën a may nopp te yaakaar naa Alioune Tine moom ci ci lancé boobu la nekk mhm. bari na nag ñeneen nga xam ne ay naatongam yoo xam ne gars yi dañ leen di jiiñ ne ay politiciens lañ mais dañuy dañuy nëbbatu mhm. lu ci mën a xaw daal ñoom nañ def seen rôle ñoom Sénégal moom lañ war a xeexal du ma Samba lañ war a xeexal du ma Demba lañ war a xeexal te euh, ñoom it loolu ñuy wootee muy pouvoir comme ñi leen di bàyyi xel te xam ne ñooñu seen liggéey la ñuy def jàmm Sénégal moo leen tax a jóg kon ñooñu ñi leen di bàyyi xel bu baax a baax. d'accord voilà donc moom moo dégg li Sall luy euh, daan wax par exemple ku mel ne Alioune euh, wala euh, ma su ma dugg cité keneen naa ah, parce que ci société civile moom laa gis ni vraiment il joue le rôle de sapeur moom Alioune Tine. waaw xam nga yaa daan na ko def yàgg na ko def mais projet bii nii ak troisième mandat bi fi ñu toll nii. man je me bu ci bu ci bu ci bu ci rebondir terewul gars yi def li ñu bëgg a def koo xam ne lii la bëgg a def te fii la bëgg a dem donc jëru yàq sa énergie mënu ci fay dara. mënu ci fay dara parce que déjà programme bi lépp loo xam ne dañoo maanaam projet Adji Sarr Sonko dafa nekk benn kii boo xam dafa am feuille de route dafa am bii boo xam dañ fii la jógee fee la jëm. ah, ah xam nga xam nga. non pas booy man benn nit laay àndal ci politique. te te te du nekkul politique ñu boole dafa nekk sama nit. muy kii mujjee ñëw ci politique bi. kan moo mujjee te li ñu boole nekkul ay politique ak genre dafa am beneen lien bu ñu boole boo xamante ne si euh, moo gën a moo moo gën a originalité lii nii. donc bu élection jotee moom laay voté waaw moom laay voté parce que. gëm naa ko gëm naa ko parce que jikko yi may gis ci politique ak yi may woon bokkul. donc fofu lañ fofu lañ soxla tamit jëmu di am na ndaw ñu bari ñoo xam buñu ñu meloon bu ñu gis ci mom buñ ko gisoon peut être mën nañ ko votel peut être nak politique yaakar non dañ la koy nangul nangul nañ la ko politique lo gis yaakar la mën nga yaakar ci nit ëlëk mu won la leneen donc non la démé mais quant à mom aliuti nak wayana yaanaa maar ak sénégal nangam ak nangam ci am li ni dafa am fooy dóorul am bi fi la joggé fi la jëm ni lañ koy doxale euh, mënuñu ko koy mënuñu koo yàqal mënuñu ko yaakal bu doon yàqu yàqu na bu yàgg hmm. D'accord, voilà donc le nid des ces temps en c'est l'occasion. vraiment tamit nga wax ci sa mbokk artiste bi Bass Diakhaté vraiment yàgg nañoo bëggal bëggal na ma bëggal na la bëggal na ku ñuy seetaan donc moo wàcc liggéey tey ci àllarba gi. donc c'est l'occasion également de parler un peu. des artistes. ñi nga xam ni dañuy faral di feebar te duñ am lu leen fajee. ba mën nañ fa jaaree ñibbi. te pour vraiment Arcos mi ngi fii. am na d'autres mutuelles yoo xam ne ñi ngi fi pour mën a jàppale les artistes yow def naa am nga loo ci mën a wax. en tout cas ñu ngi koy jaale famem parce que ñu ngi ñoo xam ne ne depuis quatre heures matin euh, man ci Moussa Diallo sax laa ko ba riiru tribunal dama yeew gis ma staté ko ma wax téléphone m'expliqué ma ni ma gaañu ne depuis démb di ko jaale artiste yëpp rek di wax ni ñu ngi leen koy jaale di wax comme ni nga wax sànq rek euh, faaw ñuy fexee di gas yi nga xamante ni mooy mooy espace yi nga xam mën nañ mën nañ ñu téye lu ci melni arcoche lu ci melni ni donc amna ay lien yo xamné soko soo mën na la mën na la mën na la dimbale ci lu bëree bëree bëri bëri donc ma ngi ma ngi wax artiste yépp nañ ci dem euh, bu dee bi nga bokk la ci président mën na teg ci condition bu féké compagnie bi mën na la bol président arcoche président arcoche yóbbu la ki nek sodaaf yobul la ak feneen ak donc sénéra ngi fi donc nañ démarche yo yépp ñu xol naka lañuy def ba artiste bi té suma jumul euh, artiste yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dox ci lolu parce que ñu ngi dox association yoo xam ne tey jii bu bu fekkoon moom Saloum yi dafa am jafe-jafe àdduna dañ fexe ba taxaw ko mm-hmm. donc xam dutuñu soxla mama dutuñu soxla daam dutuñu soxla mari ñoom seen biir ñooy taxaw pour def ko te loolu mu ngi nekk loo xam danañ ko lancer bientôt incha allah rabbi mm-hmm. donc di ko jaale famille bi ñëpp di ko jaale Sénégal parce que comme li nga wax yàgg na bégal ah ah ñëpp wax dëgg yàlla mm-hmm. démb xam naa ne ci kanam tuuti lañ koy yóbbu Touba loolu Moussa Diallo ah,

waaw di masaw coono njabootu Bas Jaxate di ko mm. ñaanal moom fi bàyyi ko suñu boroom di yërëm ko te jégal ko xare ko àjjana di wax ne rek loolu moom métier mu mën a doon dañ ko war a encadrer mm-hmm. di am ay assurance vie surtout nga xam ne tey artiste bi bu feebaree mm-hmm. même boobu lay moyen sax dina mën a dem fay ko am moyen dur mais malheureusement Sénégal moom li wax rek informel bi moom moo ñu moo ñu dominé ci lépp dañuy dox rek noonu di dem te dund doomu adama moo feebar ñoo ànd ku wér tey suba di nga feebar kon loolu foog ñu koy prévenir di ko bàyyi xel ba bu ñëwee du ñu bett kon kuréel yi mel noonu war nañ koy taxawal donte eh, eh, li ñu laaj bu metti sax mais ñu def ko bu fekkoon na chaque weer 2000 francs ngay verser wala 5000 francs ngay verser avec le soutien de l'État yaakaar naa ñu def ay ñu def euh, ay kuréel yu mel noonu dana tax artiste bu feebaree tey am lu ko lu ko mën a faj mais yaa ngi koy wax chaque jour bu artiste feebaree ñu di war di ko ketal yaakaar naa loolu wax dëgg yàlla ku mel ni Bass Diakhaté. Hmm. Ah, muy man muy sama morom. am na démb barki démb lañu gis ne na en tout cas moom nee na soxlawul hmm. a def kat pour hmm. nag mais nag mais nag loolu loolu. man jëmm di jóge na fi ketal artiste pour mu faju jóge na fi. parce que euh, bu ma jumul euh, ban at lañ fi mos ketal pour mu faju amoon na Papa Diop euh, ci mujj non non ak Baye lu xaw na def temps mhm. ci ginnaaw Papa Demba moo fi gën a àdduna yàlla na ko yàlla yërëm mhm. Arcos ñoo taxaw faj ko ba mu tane ba ni mu génn àdduna Diop Fall Marème Faye Sall moo ne moom daf koy yóbbu parce que moom Diop daf koy bégal hmm. loolu kenn mënu ci dara mais taxaw man ju taxawaatuñ fi télé bi ñaanal benn artiste pour ñu faj xam nga parce que parce que parce que artistes yi seen bopp ci seen bopp ok dama lay xam nga dafa Ba Lamine Ba def naa la tudd nga tamit gis nañu xam nga loolu. ba loolu ñi mu jooy la woon Ba kañ la gaañ El Ba kañ la gaañu kañ la gaañu mama. xam nga maa ngi lay expliquer sànq. El Hadj muy gaañ ci première saison Idole. te bi Ba bu njool man Lamine Ba laay wax Lamine Ba la tudd mooy mooy artiste bu gàtt bi. bu ndaw bi. waaw léegi dafa am ñaari affaire am mooy que dafa am ay affaires yoo xam ne artistes yu bëri comprendre luñ ko woon mooy li nga doon wax sànq. mais mais cette fois ci nii fi ñu toll nii. Hmm. benn Leyti Fall mun a jël engagement Arcos Arcos Pikine artiste boo feebar mu faj ko ci xaalisam. waaw ñun jëloon la xaaral benn bi des mooy Arcos boo dem am na ay fonds yu fay teg. chaque fin de mois artiste ñu ngi versé ci seen i compte yooyu noonu pour que di jël ay même xew sax xew. sa hmm. jabar nii tey su amoon doom. Hmm. artiste bu ñu defee délégation. Nah, liñ andil mën na la fatal tur bu bari ci sa xew d'accord loolu c'est une révélation bu da nga am xew ci arcos bi arcos artiste bu nekk day cotiser force pour ñu dem ci xew kon loolu peut-être bu fekkoon dañ cee nelawoon ñu ngi commencé voilà merci beaucoup donc loolu leer na alors suñu temps jeex na euh, momo nga nga tàggatoo waaw di nuyu sama sama wa dëkk ba wa mbar mari sama xalé dañu dañoo taxawal benn man mbar la dëkk mbar bo génné kaw rek presque bu la neexee mën bu la neexee mën nga jaar Touba dañu taxawal benn fondation boo xam ni taxawu sama gox lañ ko tuddee chaque fin de mois personne bu nekk deux cent cinquante ngay verser ci compte bi bu ñu demee ba ba décembre ñu def benn journée de consultation gratuite plus don de médicaments pour troisième âge nekk foofu parce que gis nañu gis nañu tàngoor bi di sonal wala yenn maladie yoo xam day nekk foofu noonu te pare être du am doole pour ñew Dakar donc jeunesse bi loolu la taxawal ma ngi ci yoo ñep di wax ni mën nañu. mën en tout cas prochaine prochaine sortie dinañ ñew inshallah waaw dina leen dina len inviter ñu dem. en tout cas dal ñu ngi len di wax ni mën ngeen mën ngeen dem ci ci ci page Facebook bi ngeen jël nee bi ngeen bokku ci groupe bi parce que luñu ñu defal. dëkk bi moom waxaat turu dëkk bi parce que ma ko Mbar ah Mbar dekk bu mag la de mari mo hmm? ngi boot 73 villages ville bi boot na 73 la boot ville bi ñun ci biir ville bi lañ dëkk ñun ñu rek dëkk benn quartier bu ñu xam Mbar donc nañu nañu nañu nañu dem adhérer ci groupe bi ah, di def li nga xam moom moo di versement yi parce que suñu bopp lañ koy def def luñ ko kenn euh, donc nañ ko def jeunesse bépp ak mag ñi ñëpp ñu ngi leen ci invité bu baax a baax a baax mm. en tout cas merci beaucoup di amoon naa mbégte ànd ak yow ak Baye Dame tamit aussi merci beaucoup Momo Salim alors euh, Dame yow looy tàggatoo waaw bëggoon naa la mooy ci sport mais comme temps bi jeex na baal ma tàggatoo rek. non non pas xam nga nag tamit yóbbante noonu. Euh, waaw général joxe na. joxe na gars yi nag ñu ngi ci wàccaayu mondial bi ay Abdou Diallo moom mi ngi ci état bu baax. Fodé Ballo-Touré Sadio Mané na moom. Ligue des champions ak ak ak Bayern na. xam naa su ma defoon nag mayu bu gàtt naa carton plein lañ def ñoom vraiment si seen six matchs yëpp dañ ko assuré. Mm. ñoom dix huit points lañ lañ génne Sadio moom vraiment mention spéciale. Mm. ah Edouard Mendy nag gars yi nee nañ mu ngi bëgg a reconquériraat moom bu duggaatee ci terrain bi yaakaar naa bu ko gars yi maye sens dina dina dina defaat maninam bala ñoo dem coupe du monde. ok ah, Koulibaly nag moom nee na rëccuwut lu mu jógee Naples ndax Naples boo xoolee mooy club bi mu jógee dem Chelsea. te moom it wax dëgg yàlla liggéey des champions ni ñuy def performance yu yu am solo. Ah, ñu jógee foofu dem Boulaye Dia moom mi ngi Italie. momit mi ngi dugal na mi ngi def performance yo ah, am am am solo ñi nga xam na nak ñom ñoy wa wa Marseille dañ leen éliminer ñom Ligue des Champions mu ñu dem sax Europa League wax deug yalla ci dernière minute la leen indi kon Bamba jien ak eh, ko nga xam ne moy pap gay ñoñu mu ñoo dem rester Europe sabali mom dafa joggé ci blessure mais ñëwaat na ak état de forme bu baax ñu dem nak ki nga xam ne moy <laughs> ciowli ci dëkk bi moy ah malaysia ah ak federation Sénégal gars yi nag nee nañ moom wax dëgg yàlla. 45 000 francs 45 000 francs ak fi mi toll ak fi réew mi toll. vraiment day xaw a day man moom xam naa moom di ko si mayoo. non non mayo fëgg jaay laa mujjee wut rek. Ah, yu 4 mille yu 4 mille yi <laughs> waaw wala yu 3 mille xam naa vraiment cher na. gars yi fédération bi nañu xoolaat nañu jàppale Sénégalais yi ndax gars yi mondial bi dañoo bëgg a supporter Sénégal wax dëgg yàlla. Uh-huh. sama classe gi hmm. bëgg a jënd bëgg a jëndal Awa Ndiaye. waaw bëgg a jëndal Nogay. Nogay day métti day métti day métti waaw day xaw a métti 45 day xaw a métti. Hmm. waaw man peut être sax man bëggoon naa leen a jëndal waalu gare. non ñoom ñoom mën nañu leen di mayu 4 minutes mais waalu bëggoon a jëndal. non mayu 4 minutes baax na si ñoom wax dëgg yàlla. loolu day dana dina métti ba xanaa président jàpp ci rek. na président bu ci doon jàpp si du jàpp ci quarante cinq mille francs dafa bëri dafa bëri nag. ah kon daal ñu ngi leen di wax waa fédération Augustin vraiment na xoolaat njëg yi sa loxo waaye maa ngi na. li mooy li mu ñàkk contrôle rek <laughs> chaque fois li wax mooy chaque fois lu ñëw lu ñëw ñu profité ci. mooy réew mu ñàkk contrôle c'est vrai qu'on est des patriotes mais après tout euh, on est en crise ah, aussi ah il faudrait que tam fédération xam ku ci nekk bëgg nga am un maillot. de ah, Sadio Mané pourquoi pas alors donc nañu xoolaat njëg vraiment parce que dafa cher trop. ah ku mel ni li bootu ci ginnaawam dafa bëri <laughs> su ma bëggee sol solo ñam ma tamit bu yàggee ah.